wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadoul Bassir Mbacké mii euh, moo ma digaloon ne fépp foo xam ne représentant xalif sall di murid ma nga fa di jëwlin sëriñ Tuubaa yi moo leen soxla woon ngir am lu mu bëgg a waxtaane ak ñun woote bi ñun jotal nañ ko bu baax waaye naa defe naa it yéen itam wuy si ngeen kon nag Cheikh Mouhamadou Bassirou ngi nii daañu jox kàdd gi maam Samba Seck bu noppee wax ci turu ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñépp su ko defee sëñ bi daal di wax li nga xam ne moom la ñu doon wooyee kenn ku nekk yóbbu ndigal loolu jërë ngeen jëf. sëriñ bi sunu yaakaar li ñuy ñàkk wax mooy. ñun tàng yi nga xam ne ñu ngi toog fii nañ bokk sant yàlla julli ci yonent bi doole mooy ci Serigne Touba ñaanal Cheikh Bass mii yàlla may ko fan gudd lool wànd ak wér ak kattan ak xel ba lépp lu mu bëgg a liggéey Serigne Touba mu liggéeyal ko ko lépp luy yéeneem yàlla na yeggali lépp fi kanamam ndax kat. yéen bi diis na waaye sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko yen oyofal na ko mën na ko oyofal te yàlla na ko oyofal ci moom Cheikh Bar ñu ngi lay wéttali ko di la tiitaroo di yaakaar ndax lii ñi nga xam ne moom nga yenu man nga ko de man nga ko it yan yàlla fa la cat waxtu woo xamee ne wax nga ñu jàkkaarloo yow suñ ko day sedd ndax foo bëgg a yegg ci wax fu nit bëgg a yegg nga yegg fa ci wax dem nga ba weesu ko kon yal yàlla defal la cat féewal leen ak gémmiñ te lii yàgg ci yow ñun nag ay dongoy Serigne Touba lañ kenn ku nekk gox ba nga xam ne fa nga ne nga toogal fa Serigne Touba te fas yéene kenn dina accam kenn ku ne fa ne nga xam naa ne matee nga ko ndax dañuy dëkk ci nawle dëkk ak ñeneen waaye nag du ñu dégg accam mukk loolu moom xam naa ko kon daal ñu ngi lay siyaare di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mii moom yàlla mayaat ko fan gudd lool wax na wér ak kattan ak xel ba fi mu bëgg a xeggal liggéey sëriñ Tuubaa bii yàlla may ko mu xeggal ko fi kanamam ba sumbaat yeneen su ma doon mën na ko xam na ko sañ na ko yan na ko sama borom def ah sëñ Maodo mii nag moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ci coono yi ak farlu bi ndax kenn mënul ku ne nga jox ko loxo. ne ko nangam nangam waaye moom de mën naa wax ne defe na ko ndax téléphone am bii woo na ñëpp ñëpp uyu nañ ko yi nag ndax du ci tàyyi du ci toq te jiite mbooloo moom ku ne xam na ne lii la àndal ñun daal suñ doon wax ci yow suba ba fii ba arsamaan setit e duñ doyle ci wax ci yow ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Khadir mu baax ma ma de bëri na lu ma fàttale ko ci moom lool ndax 1961 booba amaguma soxna laay ñëw fi moom am naa ay taaw yu jigéen waaye suma taaw bu góor moom laa ko tuddee ndax booba yàlla mi dara tëwul ak mbaaxam jox na ma ci moom cër bu xam ne duma ma doole ci moom mukk su ma doon wax ci moom ba asamaan set du jeex kon yal na yàlla taaj ci barkeem yan nañ ko yàgg ko keroog bi sëñ Blaat bàyyi ko mu fekkoo kër gu mag ndax maa ñëw jox ko loxo dafa yëkkati loxo ba loxo mu tedd ba dama yóbbu na sa ngërëm de yóbbu na sa ngërëm de na sa ngërëm de xam nga loolu wax dëgg yàlla lu rëy la sëñ Ciri Mbàkke sëñ Ciri mii am na màggal goo dama ko yónnee mat mu wax ndaw yi ne leen wax ne man sax ma ne ko sëñ laat fàcce na ko bu yàgg yow léegi bi ma bàttalee sa xamat sekk mii suma addiya def ko ci homologue ma ne ko joxal ma ko sëñ sëñ sëñ sëñ man damaa ànd ak eh, suma doom mu ànd ak soxnaam ñu sonn ba léegi waaye bu doon man sax yàlla may na ma kàttanam moom mii mu wax léegi ne wàcc nañ la bu yàgg moom mii moo ko wax léegi waaye daal sëñ bés ñaanal rek ñu gën fi yàgg rek ndax murid moom euh, bu wàccee rek dafay doy waar xanaa dañuy soppi doxin rek waaye duñu wàcc mu jërëjëf ñu ngi siyaare bu baax a baax a baax di siyaare sëñ Bachirou di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te yokk ak wéram di sant di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla guddalu fanam te yokk ak wéram waaye noo ngi nuyu mboolem ñi fi nekk ñëpp ci turu euh, ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne baax nga xam ne ñoo nekk ci gox goxaan yi te sëñ eh, Modou Mbacke si na nañu sëñ Bassirou nee na lépp loo xam ne lii ñi ngi liggéey sëriñ Touba ca gox goxaat yi na ngeen dem ci ñoom toog waxtaan ak ñoom yaakaar naa bi ñu ko defee ci weeru koor wi dem nañ ci juróom-ñaar fukki dëkk ak ak ak ak ak ak ñeent yoo xam ne yi ñëpp dañoo dem ci ñoom xamal na leen ndigalal sëriñ bi mooy nun ñëpp nu àndandoo nekk benn fas jom ànd liggéey sëriñ bi loole itam ñooñu ñoo dikk toog nii taxaw ci jataay bi ñuy gërëm gërëm ñëpp di sant ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal sëriñ bi fan wu gudd ak wér liñ bëggoon a wax lépp xëy na mënuñu koo wax waaye sëriñ bi Mbàkke noo ngi ci sa gannaaw guddi ak bëccëg ban déggee wax bi ak léegi musunu noppalu guddi ak bëccëg te fasunu yéen a noppalu guddi ak bëccëg li tàmbalee jonwaar ñoojoor falya munde ak euh, suwaal ak dëkk yi fi nekk yëpp dem nañ fa Mbàkke ñoom ñëppitam ku fi yor kër sëñ Touba yëkkati na ay kayitam teg ko ci suñu loxo ñu jébbal ko sëriñ bi kon nag loolu ñi ngi sant sëñ Modou Mbacke si mu baax bu baax a baax ndax moom it kat moo nu xajal yaatal nu ba nag ba ñu mën a liggéey sëriñ Touba ba nag ba ànd koog mbooloo mi. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yu tedd yi fi teew. mbokk yu tedd yi fi teew. nga xam ne. yéen ñi nga xam ne. yéen la suñu borom defal tawféex. yéen la suñu borom defal tawféex. ba ngeen wuutu sëriñ bi ci région yi. ba ngeen wuutu sëriñ bi ci région yi. ak département yi. ak département yi. ak gox goxaan yi. ak gox goxaan yi. ni ko sëriñ maam Samba Seck waxee. ni ko sëñ ma Samba sekk waxee. ndax moog sëriñ Amar Seck. ndax moog sëriñ Amar Seck. ñi leen ci mag bëriwul. ñi leen ci mag bëriwul. te ñoom barkeelu lañ. te ñoom barkeelu nañ. barkeelu lañ ci mbooloo mi. barkeelu nañ barkeelu lañ ci mbooloo mi. ndax ndax lislaam bu doon wàcc bu doon amul ndax lislaam bi. bu amoon wàccuwaay. bu doon bu fekkoon nit dana ci wàcc. bu fekkoon nit dana ci wàcc. kon dootuñu génn seen kër. kon dootuñu génn seen kër. wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin. suñu borom dafa wax ne. suñu boroom dafa wax ne. del jaamu yàlla. del jaamu yàlla. ba keroog ngay faatu. ba keroog ngay faatu. liggéeyal Serigne Touba nag. liggéeyal Serigne Touba nag. amul wàcc amul wàcc. lu jeex rek. lu jeex rek. fekk sa kattanang koy mën. fekk sa kattanang koy mën. nga di ko def nga di ko def. kon ñu ngi leen di sant. kon ñu ngi leen di sant. di sant ñi ci des ñëpp te tudduñu seen tur. di sant ñi ci des ñëpp te tudduñu seen tur. Serigne Modou Mbacke si ma leen booleel. Serigne Modou Mbacke si mii mu leen booleel. gannaaw ba mu ci amee ndigalu Serigne bi. gannaaw ba mu ci amee ndigalu Serigne bi. ndax lii liggéeyu Serigne bi la. ndax lii liggéeyu Serigne bi la. ndénkaan rek la ci moom. ndénkaan rek la ci moom. waaye nag yëf yi yëf yi euh, Cheikh Modou Mountakha la. waaye yëf yi yëfu xalif général des Mourides la Serigne Mountakha Bachir. dama ko dénk nag. daf ko koo dénk rek. waxoon ci làmmiñam ngeen fekke. mu waxoon ci làmmiñam làmmiñam ngeen fekke ne neen doxal moom ne naa leen sama diggante ak yi moom lu may wax danaa ko wax mu lu may wax danaa ko wax mu wax leen ko man mii itam nag moom mii it maa ngi sant sëñ Modou Mbacke si mu ngi sant bu baax sëñ Modou Mbacke si ndax sant moom li ci ëpp solo ndax sant li ci ëpp solo booy sant nit booy sant nit da koy sant ngir yàlla koy sant ngir yàlla te gis naa te gis na pasteefam ak dogoom ak dogoom ak bëggam Serigne Touba ak bëggam Serigne Touba ak liggéeyal ko. ak liggéeyal ko. moo tax mu doy ñu ci. moo tax mu doy ñu ci. nam ñu ci doy woon ci yónnent bi. nam leen ci doyoon ci yónnent bi it. noonu la ñu ba tey jii. noonu doyee ba léegi. ndax gisuñ ci lenn loo xam ne. ndax gisuñ ci lenn loo xam ne. dëppoowut suñ dëppoowul ak seen mbégte. wala nuñ ko bëggee woon. wala nuñ ko bëggee woon. kon dañ koy ñaanal. kon ñu ngi koy ñaanal. suñu borom sàmm ko. suñu borom sàmm ko. gën kattan. suñu bor gën koo may gën koo may kattan. ndax du ne du guddi na. ndax du ne guddi na. du ne naaj na. du ne naaj na. sonn na. du ne sonn na. te du jàmbat. te du jàmbat. du yoxet du yoxet. loolu nag. loolu nag. yéen ñii fi ngeen nekk. yéen ñii fi ngeen nekk. kuy jokkoo ak kuy jokkoo ak yéen. warta nekk ku tayal. warta nekk ku tayal. warta nekk ku yaafus. nekk ku yaafus. ku ci nekk ci barab fu ndax ku ci nekk ci barab fu ne. ñu ngi lay xoolee jëmu Serigne Touba. lay xoolee jëmu Serigne Touba. yaakaar yëpp di daje ci yow. yaakaar yëpp di daje ci yow. kon nag yéen itam. kon tam yéen itamit. coono bi ngeen di daj. coono bi ngeen di daj. yëg nañ ko. nañ ko ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci gërëm di digal kenn ku ci ne di digal kenn ku nekk ci yéen fa nga nekk fa nga nekk ña fay ay kilifa. ña fay ay kilifa. ñu gën a xam ne yéen a fa teewal sëriñ bi. ñu gën a xam ne yéen a fa teewal sëriñ bi. lu ñuy waxati. lu ñuy waxati. ñu di leen ko wax. ñu di leen ko wax. muy agsi ci ñoom. muy agsi ci ñoom. yéen itam. yéen itam. ngeen xam ne njaboot gi. ngeen xam ne njaboot gi. di taalibe di taalibe yi ñooy njabootug sëñ Touba. ñooy njabootug sëñ Touba. kon nag yàlla bu leen defalee tawféex. kon nag yàlla bu leen defalee tawféex. teg cam nattu. teg cam nattu. ndax jiite ay nit dafa métti. ndax jiite ay nit dafa métti. kon nag yéen tamit kon nag yéen itamit. ngeen xam ne. ngeen xam ne. du ngeen xool ne. du ngeen xool ne. ci am na doole. ci am na doole. ci néew na doole. ci néew na doole. fa liggéey bi gën a farataa sax. fa liggéey bi gën a farataa sax. mooy ñi mënul seen bopp. mooy ñi bopp. ndax ña mën seen bopp. ndax ña mën seen bopp. mën nañoo liggéeyal seen bopp. mën nañoo liggéeyal seen bopp. mën nañoo lijjanti seen bopp. te du agsi ci waaye nag néew doole yi. nga xam dañuy xam ne dañuy jaaxle. am am yaakaar. ñëw ci ñëw ci yéen. ña ngeen ngeen ko seqal itam. moo tax ña ngeen ko seqal itam. leen gën jàppale. nañ leen gën a jàppale. leen taxawu leen. te xam ne te xam ne. ku ci fi teew ci barab fu ku fi teew ci barab fu ne. sëriñ bi nga fa teewal. sëriñ bi nga fa teewal. lu yàgg ci lislaam la. lu yàgg ci lislaam la. nee na rasulullah rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon état dafa amoon état ci biir état bi ci biir état bi fenn fu ci ne fenn fu ci ne ndawam ndawam moo fa newoon ndawam moo fa newoon moo fa daan yónnee moo fa daan yónnee ñi mu jox ay mission ñi mu jox leen ay mission ñi teewal ko ci barab ñi teewal ko ci barab mooy lii ngeen def ba tey mooy lii ngeen def ba tey ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoo doon yonent bi ñoo doon yonent bi yéen itam kon yéen itam nii ngeen nasoo rek nii ngeen nasoo rek ngeen gën ko wéel ngeen gën ko wéel ba nga xam ne ndigal lu ak ba nga xam ne ndigal lu ak seeti buñ ko waxul ci rajo it buñ ko waxul ci rajo it yéen ñëpp da ngeen ko yëgandoo yéen ñëpp da ngeen ko yëgandoo ko defee nii ni comme ni ngeen ko defee nii kon nag ñu ngi leen di sant nee na mu ngi leen di sant ndax yëg nañ ne ndax yëg na ne lu ëpp juróomi at a ngi lu ëpp juróomi at a ngi nii ngeen di ko defee nii ngeen di ko defee nii te waxtu wu nekk te waxtu wu nekk day gën a yokk day gën a yokk Pastef bi di gën a yokk Pastef bi di gën a yokk ñu ngi sant ñëpp nag ñu ngi sant ñëpp nag ndax kenn ku ci ne ndax kenn ku nekk la ngay jëf la ngay jëf bu ma la gisu tam agsi na ci moom bu la gisul it agsi na ci moom waaye nag seere si moom waaye nag seere si wakafee billahi shahida yàlla doon na sëkk ci seere yàlla doy na sëkk ci seede Serigne Touba mi ngeen di jëfalit Serigne Touba mi ngeen di jëfalit buñ ko xamul ñun ñii itam buñ ko xamul ñun ñii itam moom pay gi ci loxom la nekk moom pay gi ci loxom la nekk buñ ko xamul ñun sax ndax buñ ko xamul sax dana leen fay dana leen fay kon yàlla na leen fay li tax ma ne sëñ Amaat ak Alaaji Maam Samba Seck mi ay barkeelu lañ nee na li tax sëñ mu ne sëñ Amaat ak sëñ ma Samba Seck mi ay barkeelu lañ euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacke fii la leen bàyyi woon ñu nekkal fi sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke fii la leen bàyyi woon ñu nekkal fi sëñ Touba Cheikh Abdou Khadir ñëw bàyyi leen fi ñu nekkal fi. Cheikh Abdou Khadir ñëw bàyyi leen fi. ñu nekkal fi sëñ ñu nekkal fi sëñ Touba. Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw. teg leen fi ñu nekkal fi sëñ leen fi ñu nekkal fi sëñ Touba. Cheikh Sidi Mokhtar ñëw teg leen fi Cheikh ñëw teg leen fi. ñu nekkal fi sëñ Touba nekkal fi sëñ ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàgg loo te kenn ku ci ne te kenn ku ci ne ñoom ñii ma tudd ñoom ñii ak benn ci ñoom benn ci ñoom bennat ci ñoom ak bennat ci ñoom làq nañ ngërëm waa làq nañ ngërëmul waa kër Sëñ Touba kon dara waratu leen ñoom ndax kon dara waratu leen ñoom ñii alhamdulilah rabbil alamin